vraiment des actes forts, mais des actes graves. Parce que des actes qui peuvent être dans l'ordre de ce qu'on appelle la restriction des droits et des libertés. C'est pourquoi, aussi bien moyens humains, pourquoi il y a des retards dans, les, dans le traitement des dossiers Parce qu'il y a une certaine, euh, si vous voulez, modernisation. Euh, loolu lu lu baax la mais fan lañu ñu war a gën a mën a teg suñu tànk ndax boo graduellement mooy lan moo gën a jàmp lu ñuy tibb lan la ñuy ak lan la ñuy jekkalee ba nga xam ne fi wak at benn at ñaari at dinañ gis ay changement ay coppite yoo xam ne eh, xëy na ku daan eh, critiquer justice di nga amaat beneen regard boo xam ne dans les réformes il faut réfléchir en profondeur comment toucher le code de procédure pénale notamment dans son article cinq sur la question des mandats de dépôt et de voir un peu comment corriger cette histoire de retour de parquet qui n'a aucune consécration textuelle mais qui est devenue une pratique quotidienne

c'est de voir comment améliorer les relations entre d'une part la justice et les justiciables, mais d'autre part entre les institutions de la République ou les institutions publiques et les citoyens. Et de, ce, de cette façon, les relations seront beaucoup plus euh, fluides, beaucoup plus facilitées mais surtout les respects des droits et des libertés euh, seront encore euh, beaucoup plus renforcés. Voilà de mon point de vue les éléments sur lesquels la réforme doit s'orienter. Oui, pour une réforme, mais non pas une réforme que structurelle, mais une réforme puissante qui permettra de voir, oui, on a eu des dysfonctionnements, comment corriger ces dysfonctionnements tout en soulevant aussi une difficulté majeure, c'est la question des moyens.